sallallahu alayhi wa ala alihi wa mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza wa jal ci sunu dars bi nga xam ni moo aju ci wàllu koor te muy lenn ci attay koor wala fàttali leen ci attay koor ñu nekkoon ci risaala bu am solo boobee di nubdatun fi siyaam bu al cheikh al allaama muhammad bin salih al uthaymin rahimahullahu taala mu mel ni ñi ngi woon ci mbir yi yàq koor te boroom téere bi indi woon ci lim bu tolloog juróom-ñett ñu doxoon ba ci juróom-benneel ba te muy génnuk deret bi nga xam ni mooy deretu ngant wala deretu wasin mu ne kon juróom-ñaareel ba mooy ixraaju dam bil xijaama wa naxwiha maanaam génnug deret ci yaram génnug deret ci yaram ma deret bu génn walla boog deret bu ñuy génnee muy prise de sang ci yaram moo xam nag ci xijaama lañ ko defee xijaama mooy gàjj waaw benn procédé la boo xamante ne nii dañ koy fajoo waaw dafa nekk loo xamante ni lu fi yàgg la c'est ancestral culture yu bari xamoon nañ ko waaw culture yu bari xamoon nañ ko démb boo xoolee jamono ji nag dafa mel ni mi ngi ñëwaat sur la surface mi ngi dellusiwaat ndànk-ndànk mangoog ndax xam ngeen ni dañoo toll ci jamono boo xamante ne boo xoolee wàll fajum fajum naturel dafa dafay gën di avancé mangoog mi ngi refeeraat surface nit ñi di ci delluwaat mangoog bëri na ay njëriñ lool mangoog bëri na ay njëriñ lool jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ñu xamoon la ci yeneen tamit yeneen culture yi tamit ñoom it xamoon nañ ko comme asiatique yeeg yu demee noonu wallahu almustaan procédé la boo xamante ni nii daal doxalin la boo xamante ni nii à travers laquelle maanaam deret day génn ci yaramu nit ki ñuy jëfandikoo ay jumtuwaay nag ma bu njëkk ba moom da ngay gis dañ daan jëfandikoo jën ki koy def day muucu muucu di xëcc ma mais loolu évolué na tey ba tey am na ay appareil ma yoo xamante ni moom ngay jëfandikoo am na fenn wala yenn partie ci sa yaram sax nit ki mën na utiliser appareil boobu defal ko boppam defal ko boppam ma defal ko boppam lu dul foo xamante ne day difficile loxoom jote fa wala ay bëtam jote fa yu demee noonu daal mais am na partie yu bëri yoo xam ne ci sa yaram yow mën nga ko mën nga ko defal sa bopp ba ngoog dafa mel ni moom la ñenn ñi di woowe ventouse dafa mel ni moom la ñenn ñi di woowe loolu ba ngoog mais wolof moom gàjj la koy wax gàjj waaw gàjj la koy wax bu ko defee kon génnub deret googee moo xam ci gàjj wa naxwiha wala lu wel ni moom gis nga kon génnub deret rek day daal day daal dugg ci bunt bi gis nga ma ngoog génnu deret googu nag maanaam lu ñu génnee lu ñu génnee mu ne waaye bu fekkente ne da nga jékki-jékki daal bori gis nga ko ma walla wala boog sa bëñ moo foq gis nga ko mu ne loolee du yàq waaye bu fekkee ci xijaama la wala loo xam ni dafa am maanaawu xijaama bu boobaa day yàq koor foofu nag wuute bu rëy dafa am mangoog wuute bu rëy am xam nga bii mooy ñaareelu tomb bi ci tomb yi nga xam ni wuute daf cee am ci mbir yi muy wuute bu rëy waaw beneen bi moo nekkoon maanaam génne manilu ci tayeef te nekkoo ci nelaw ci bëccëgu weeru koor bii di génnee deret ci xijaama boo delloo ci fatxul allaam fi dirasati ahadisi bulugh al الشيخ محمد ابن حزام حفظه الله تعالى فهمني مسألة جد جتوى ركور مجنة در جتوى ركور أمنا ووتة برام خم خمي وائلي أب كتو برام خم خمي مذهب مالك شافي أبي حنيفة نيوم دانيو دي ميتيني لولو يقود كور نيوين دي أي تونتو يبرينك كيين حديثي غا خمينتيني رتنا چه gis nga xëy na nag darse bi moom amuñ fi waxtu yaatu lool ba nga xam ni danañ mën a laal ci lu ne dañuy tënk rek ma ngoog dañuy tënk rek kadalika mu ne loolee it wax la joo xam ni wér na bu bawoo ci saxaaba bu mel ni ibnu omar ibnu abbas anas ibnu malik ak it abi said wax la boo xamante ni nii rote na ci ñoom ci ne xijaama daal moom maanaam gàjju daal yàqul koor mango mu teg ci mu ne te mazhab boobu mooy demuwaay boobu mooy la nga xamante ni nii moom la Buxaari lëngal ak Ibn Hazm kazalika mooy la Cheikh Albani lëngal waaye mu am ñeneen ci boroom xam-xam yi ñu demee ne day yàq koor day yàq koor nee na loolee mooy waxu Ata ak Awzaa'i ak Ahmad Ishaq am na ci shaafiiye yi tamit ñoo xam ni loole lañu wax mu ne te loolee mooy la cheikh al islaam lëngal ak ndongam bi nga xam ni mooy ibn al qayim kazalika cheikh ibn baaz kazalika cheikh usaymin cheikh usaymin gis ngeen ci risalaam bi da ko boole ci mbir yi nga xamante ni nii dafay dafay yàq koor ma ngoog ci mbir yi nga xam ni dafay yàq koor fala ko boole waaye moom boroom sharx bulughul malaam la mu gën a rafetlu ci wax yi mooy waxu ñi nga xam ne nee nañ du yàqu koor moo tax bunt boobu baxs bi mu ci def da cee daf koo tëjee ci waxu Shawkaani ma ngoog Shawkaani ne dajale xadis yëpp yi nga xam ne rot na ci gàjju ak koor mu ne lam ca gis daal mooy xadis yooyee day wane ni daal lu ñu ciblé ci àqu ki nga xam ni bu ko defee day feebal moo tax tamit ñiy gàjj war nañoo bàyyi xel bu baax état wu ki ñuy gàjj parce que nit am na foo xamante ni nii fu muy tollu kenn du ko conseillé mu def mu def gàjj boobu xijaama boobu loolu lu jar da bàyyi xel waaw lu jar di bàyyi xel la mu ne kon ki nga xam ni su ko defee day faible te mi nga war a woor kooram na a metti parce que mi nga ànd ak faiblesse boobu kooku sib nañ ko ci àqam mu ne day gën a nag sibbeel ga day gën a tar su fekkente ne ki nga xam ni moom bu ko defee mën na koo yóbbu sax maanaam dootul mën a maîtriser koor gi ba mu dog nga mangoog waaye mu ne ki nga xam ni nag moom du faible mën naa woor ba pare def gàjju boobu du faible dara du ko ci dal mu ne kooku amul benn sibeel boo xamante ni nii nekk na nekk na ci kawam donc boo xoolee euh, ci masala boobu muy li nga xamante ni nii moom mooy gàjju gi ñàkk gee boole ko ci li nga xamante ni nii mooy lii yàq koor mooy li gën a leer mooy li gën a dëgër wallahu aalam bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi tabaraka wa taala def ci tawfiq euh, defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu